cas bii nga xam ne dañ ko am te mu nekk kaa communautaire ndax fi Touba ba ñu tàmbalee ba léegi cas yi ñu am cas importé la tàmbalee cas importé boobu am ñu mu wàll nga xam ne ñoo ñëpp xamoon nañ leen mais bii kaa nag dafa nekk kaa bu xaw a euh, particulier maanaam boo xam ne dafa am wuute gu mu wuute ak li njëkkoon gis ci xeex bi ba taxoon mu jar ñu ñëw toog woo acteurs yëpp maanaam ñi séq mbir mi yëpp ñu toog waxtaanaat ci nu ñuy gën a taxawoo xeex bi gën a fexe ba lii du wasaaroo ci dëkk bi ndax kaa boo xam ne commerçant la di jaayee marché Ocass te moom bi mu feebaree xamul fu mu jëlee feebar bi ñun itam suñuy gëstu xamuñu fan la ko jëlee loolu kaa communautaire la te cas communautaire ku nekk xam na ne euh, cas la boo xam ne mën na am wàll na ay nit yoo xam ne gisaguñ leen ba tax ñu toogoon ne fokk ñu waxtaan ci walu marché Ocass bi ak walu transport yi nga xam moy mooy nit ñi marché nak jafe-jafe bi am ci liggéey bi fi ci Touba li ci ëpp ni marché bi tëdde la du ma ne sax ñi nekk ci marché bi la parce que ñi nekk ci marché bi dañuy daan seen doole njëriñ mo leen fa yobbu luñ fay wut te lo xam la nangul nañ leen waye liñ mënta nangu nak moy comportement yi nga ñu ko fay gis ndax tey jii soo demee ci marché bi day mel ne ñoom yëguñ ne du mën a ñëpp mais bëri na ci ñoo xam ne da ngay jàpp ne sax yëguñ ne feebar bi mu ngi ci dëkk bi te boobu ba léegi ñu ngi ciy wax ba tax nag gouverneur woote ngir ñu waxtaan ci loolu xool nu ñuy jëlee ay tëralin ak ay eh, mesures yoo xam ne su ci ñëpp jaaree wàllu feebar bii dina mën a dakk ci biir eh, Touba kon. ñu woowoon transporteurs yi woo responsable marché bi am nag ay mesures yoo xam ne gouverneur dina ci ñëw wax leen nan la loolu tëddee kon jël na ci ay dogal yu am solo ñuy ñaax nit ñi ak ñaan leen dogal yi nga xam ne gouverneur dina ko leeral te muy loo xam ne jubluwuñ ci lu dul fexe aar dëkk bi ñu ñaan nit ñi ñu fexe tënku ci loolu ndax kat li ñu tàmbalee woon demoon na bay bëgg jeex waaye bi lii amee dafa mel ne dañuy tàmbaliwaat te tàmbaliwaat bi ñuy tàmbali day wuute ak njëlbeen gi ñu tàmbali woon nga xam ne demoon nañ ba wàllu feebar bi di jeex Touba waaye waxoon nañ nit ñi ne mën na am mu dugg Touba tànk nit ñi bàyyiwuñu lii nga xam ne mooy tere yi nga xam ne tere nañ ko kon tey jii ñëwaat na tuubaa te ni mu ñëwee nag dafa mbubboo lu ñuy wax cas communautaire mooy cas boo xam ne. daanaka soo ko saytoo moom ci boppam sax xamul fu mu jëlee feebar bi te ñun ñi koy faj itam gëstu nañ xamuñu fan la ko jëlee kon ñu njort ne moom am na ñeneen ñu mu wàll ñoo xam ne tey jii suñu pas-pas yëpp ak suñu yitte mooy fexe ba xam ñooñu mu wàll ñan ak ñan la ñi nga xam ne ñoom la dëkkal te ñu xam leen ak ñi mu saafoonteel te ñu xam leen am na ay dogal yoo xam ne kilifa gi jël na ko te dinañ ci jaar ngir aar dëkk bi benn souci rek lañu am maanaam benn mébét rek la ñu am mooy taxawu dëkk bi ba feebar bi du fi law